góor gi salaamaaleykum. wa rahmatulah. man Abdoulaye mbay ñu di ko wax commissaire laa tudd. Ah, ah, Abdoulaye Mbaye ñu di ko wax commissaire. ancien délégué personnel. ñu gis nga te benn pancarte retraité nga lan ngay ñaxtu tey. li may ñaxtu bari na. réew mi Macky Sall bi mu falee ba léegi dafa tas yaakaar. retraité yi léegi bu ci feebar. boo demee IPRES dañ naan amatuñu garab. amatuñu garab léegi lu ñu am ci suñu wér gu yaram lay yam amatuñu garab amatuñu dara. rek xaalis ba fa nekkoon dafa nekkoon dañ ko sàcc dafa sàcc alal bi presse ba pare ñu yóbbu ko jox ko asalam ku nag sàcc sàcc ba pare ñu joxaat la feneen foo gëm na sàcc la léegi ñu dee nañu retraité amatuñu dara nañu wàññi dara te Macky Sall sax dafa waxoon man jot naa lu mat juróomi salaire wu juróomi bulletin de paie retraité Macky Sall dafa waxoon à part ñooñu dañu leen defal trente cinq mille francs mais ba léegi dara amatu ci dara dara dara amatu fa waaw léegi dañu may jàmm te dundal suñu IPRES bi IPRES dara amatu ko amatuñu garabu tension amatuñu garabu tuufaay amatuñu garab dara IPRES rek eh, moo am kii aspirine rek moo am léegi rek aspirine rek moo fa am léegi aspirine rek moo fa am dara amatu ko. ñaata am ñaata at. Eh, c'est quatre-vingt-cinq ans. waaw bàyyi noonu waaw.